nopp dalooti na loxo dem na gémmiñ te yóbbaalewul ab tibb lan moo tax saa su nekk rek ñuy gis ay phénomènes yu bees ci li nga xam ne rek moom moo di ay ojo yoo xam ne day fuyute te lu ci baree baree bari nag bu ñu defee remarque bi day jëm ci ñi nga xam ne rek ñu siiw lool lañuy doon fii ci biir réew mi bile yoon nag ci jàngat boobu dañ fa yéene daal di kaat ak beneen ojo boo xam ne dégg nañ ko taloole sax mën nañu mbir mu doy waar la te ñu koy takk suufu ci ñaar ñi nga xam ne rek mën nañ ne seeni tur siiw na lool te ñuy liggéeyee ci ay média lu ci baree bari ñu leen faral di leen gis seeni tur fees lool ci réseaux sociaux yi te boo ko tàppee woon sax mën nañ ne bokk nañ ca ña nga xam ne rek ñooy njëkk génn te mu commencé bu duñ tudd turu kenn en tout cas audio yi ki nga xam ne nag moom lañ gis muy traîner ci réseaux sociaux yi du audio yi kenn ku dul ki nga xam moom moo di Adiouza ca mbir moomee lañ fa yéene daal di dikk nag toj ko ba mu yaatu ci diggante ki nga xam ne moom moo di bàcc li Balla Gaye 2 ak ki nga xam ne rek moom moo di Aziz Ndiaye mbokki internet yi bu fekkente ne c'est la première fois que nga tombé ci suñu vidéo xamal ne njëriñ rek lañ fiy wax kon nag wéyal di abonné saa su nekk ngay j'aime vidéo bi bu baax a baax say commentaire ci suufu vidéo bi ñu ngi ko si xaar gannaaw ba ñu gisaatee ay révélation yoo xam ne rek ñenn ci activistes yi daal nañ koy jot a def jëmale ko nag ci ki nga xam ne rek moom moo di Adiouza moom Adiouza mii nag mën nañ li ñu faral di ko nemmeeku di ko gis ci réseaux sociaux yi bariwul wante bi la yoon ñu daal di remarqué que ne gis nañ ay ojo yoo xam ne mi ngi fuyute te ñu baree baree bari ñi nga xamle que ne ojo yooye Adiouza la ana kan la doon waxal nag ci ojo yi. Euh, selon ki nga xam ne rek moom moo di Californie di ay ojo yoo xam ne ñi ngi dégg kii nga xam ne rek moom moo di Adiouza mu yëkkati ay kàddoom. di wax ak kenn ci ñaar ñi nga xam ne rek ñu siiw lool lañ te seen tur commencé bu ñu baree bari nag ña ngay commencé di ñaaw njortu ci li nga xam ne rek moom moo génnagun jamono bii ñu toll nii te la fës sa audio du lenn lu dul kene Adiouza day génn ak kenn ci ñaar ñooñee te mën nañu ñoom ñi ngi yore li nga xam ne moom moo di seen jabar ba yegg ci sax ñu bëggoon a def li nga xam ne rek moom moo di takk suufu malheureusement loolee mujj te am ndax moom mii di Adiouza mi nga xam ne que ne dañ koo trair mu nekk nag phénomène boo xam ne bu ñaaw ñaaw ñaaw la ndaxte nag bu fekkente ne dañoo dem ba ñoom ñi nga xam ne rek jàppoon nañ que ne ñoo ñuy war teg si yoon jàpp nañ que ne ay parole yu baax a baax lañ waral di génnee ñiy dem bay jëf ji ni mel ci ñi nga xam ne rek dañuy faral di siiw lool ñu leen di miin ci réseaux sociaux yi ñii ci télé yeeg rajo yi mën nañ ne foo tourné dañuy mel ne rek soq bu tuuru te fekk ne yow la nga xam ne rek moom la ñuy def na la ko yàlla nëbbu ba tax moom mii di Adiouza lan moo waral ay audiom daal di jot a fuyute lan moo waral ojo yi daal di tas jamono bi ñu toll nii te ojo yooyu nekk ay audio yoo xam ne rek yu baree baree bari la boole kook li nga xam ne moom moo di ay vidéo te nag ñi nga xam ne ñoom lañ ciy waxal mën nañoo jàpp que ne bis buñ demee ba lii di kaa leer dina am ñoo xam ne dinañ am jafe-jafe ak société bi dinañ am ak jafe-jafe ñi nga xam ne ñoom ñoo di seeni soxna te li waral li ni mel nag du lenn lu dul ñaar ñi nga xam ne rek ñoom lañ jàpp ko ne ñoo jëf-jëf ji ni mel ñu ngi yor li nga xam ne moom moo di seeni soxna yor li nga xam ne rek moom moo di seeni njaboot ba tax saa su nekk rek ñuy faral di dànkaafu moom Adiouza nag mën nañ ni ak ay fansam yoo xam ne bari nañ lool ku ci nekk mi ngi jug di ko défendre ci biir ak ci biti di xamle que ne loole nekkul li nga xam ne rek moom moo di jikkoom te ojo yi nga xam ne moom la Kaliphone teg est-ce que ojo yooyee ay audioom la ndaxte tamit mënuñoo tëb tëb rek un bonjour xëy xamle que ne moom Adiouza moo def ojo yi ni mel te moo def vidéo yi ni mel yeneen version yi nag kenn déggu ko ci jamono bii ñu toll nii mu nekk ay version yoo xam ne ñi ngi ko doon xaar. wante moom mii di Kaliphone mujj gisee dikkagun ndaxte li nga xam ne rek loolu si bañ jamono bii ñu toll nii mooy ñu daal di koy sot sotoo te su boobaa du xam kan la war a tontu ak kan la war a bàyyi xanaa kay ñu xool ba xam fan la wànnent di mujjee ak ay gëtam wala boo ko dañuy daal di accuser directement kenn ci ñaar ñi nga xam ne rek seen tur buula la commencé te loolee mën nañ bu jëmee kaw niñ ko waxee woon sànq loxo dina dem gémmiñ te du yóbbaale ab type xanaa kay ñu xool ba xam est ce que kenn ci ñoom ñaar dina génn def ay réaction yoo xam ne day firndeel day béral que moom taqewul laalewul ndaxte selon ki nga xam moom moo di Kaliphone lim jot a fësal du lenn lu dul ñaar ñooñee day ñu siiw lañ te lum gàtt gàtt ci semaine bi dinañ génn télé lu mat ñeenti yoon ba juróomi yoon. en tant que ñi nga xam ne nag miin nañ leen lool ci li nga xam ne rek moom moo di réseaux sociaux yi tax nag ñu baree baree bari am seen xel fu mu daal di dem fekk jamono boobu nag am na loo xam ne jàpp nañ que ne actualité la jàpp nañ que ne tamit lu waroon a mën a nekk la ci diggante ñaar ñi nga xam ne yàlla boole na leen Boury Bathily bàcc li ak ki nga xam ne moom moo di Balla Gaye 2 seen diggante ñoom ñett mën nañ ne nekkoon li nga xam ne rek moom moo di cereeg soow boole naan wala boole tour jamono bii ñu toll nii nag gannaaw ngénte li nga xam ne rek moom mbër mu mag mi doon na ko amal di wuyoo ci turu Balla Gaye 2 ku ci nekk min na ko ñu daal di gis ay pas de danse yoo xam ne rek yu saf sàpp la jóge ci ki nga xam ne moom moo di sumbalu bàcc li doon wane li nga xam ne moom moo di mbégteem doon wane tamit contentement jëmale ko ci magam ji rawatina nag ki nga xam ne rek moom moo di Balla Gaye 2 surprise bi nga xam ne rek ñu baree baree bari ñi ngi ko doon xaar dontelee ñu ngi doon xëy di xamle que ni Sa Thiès am na problème ki nga xam ne moom moo di Balla Gaye 2 am Sa jàppal Balla Gaye ba taxoon sax ñu ne kii di Sa dafa génnoon li nga xam ne moom moo di kër gi ci kaw génn googee taxoon mbokk internet yu baree baree bari doon ci yey yàbbi wante kat moom mii nga xam ne rek moo di Balla Gaye 2 daal dinay defaat beneen acte boo xam ne rek act bu noble la di ab gest boo xam ne rek bu rafet a rafet la jëmale ko ci ki nga xam ne rek moom moo di Aziz njaay moom Aziz Ndiaye mi nga xam ne yàgg nañ koo dégg ci li nga xam ne moom moo di ay coow mën nañ ne gàmmu gi kese moom moo si mujj gannaaw bi ñu amalee li nga xam ne rek moom moo di seen guddi gàmmu ca fi nga xam ne moom moo di këram te ki nga xam ne rek moom moo ko doon def du kenn ku dul oustaz Modou Fall mi nga xam ne mën nañoo jàpp que ne ay xeet yu bëree bëri daal dina koy jot a lu waral li mel ñiy gàmmook ñiy ras dem dañoo bokkul ba taxoon rek way ya nga xam ne ña ko fa doon amal ak tagg yonent bi waroog loolu na nga xam ne rek noonu lañ ko miinee ràññee saa su nekk bu fekkente ne dañuy fësal li nga xam ne rek moom moo di màggal guddik juddik yonent bi moom Aziz Ndiaye moomee nag moom la kii di Balla Gaye 2 daal di tuddee ab turandoo ñu jàpp ko ne loole lu rafet a rafet la gannaaw ngénte li nga xam ne rek mi ngi ko doon amal moom mii di Balla Gaye 2 ci teewaayu ñi nga xam ne rek ñoom ñoo di ay leader ci teewaayu ñoo xam ne rek ñu baree baree baree bari lañ fii ci biir réew mi ci ñoo xam ne siiw nañ lool te tamit ràññee nañ leen. kon nag loole buñ ko booleek li nga xam ne rek moom moo jot a xew jamono bi ñu toll nii di actualité bi nga xam ne mën nañ ñi bu show la maanaam bu tàng jër ci diggante kii nga xam ne rek ñi ngi koy tudd te turam commencé bu ak ki nga xam ne moom moo di Adiouza ñu jàppoon que ne mi ngi ci ab ruqam di lijjanti li nga xam ne rek moom moo di ay kotam ndekete yoo moom it mu nga ca leneen li olof yi di wax rek ku nekkul ci bu gudd bi yaa ngi ci bu gàtt bi dafa mel ne moom loolee moo ko mujj dal ba tax sax mu daal di koy indil li nga xam ne moom moo di ay jafe-jafe jafe-jafe yoo xam ne sax tax na jamono bi ñu toll nii ñu baree baree baree bari di poser ay question que ne est-ce moo def wala deful lu ci mënti am mooy que ne moom fësal na que ne dañ koo trahir te ki ko amal naka du kenn ku dul ku siiw koo xam ne rek bëggoon na koo takk takk suuf ba ñu commencé woon doxal di waxtaan maanaam mu koy jël ci suuf wante kat fi nga xam ne rek foofu lañ mujjee nekkul loo xam ne lu neex la ba tax rek audio ya daal di commencé di jolli audio ya commencé di tasaaroo ci ñennet ñi nga xam ne ñoom ñoo di mbokki internet yi te loolee jàpp nañ ko ne kaala bu nga xam ne niki fan yi rek dina gën a tàng jër ndaxte tamit ay version yu baree baree bari ñu ngi ko siy xaar di xool ba xam ku ci nekk naka nga koy jàngatee activité tamit yan kàddu nga siy teg ci ñi nga xam ne rek mën nañ kii daal dina leen di jot a taqal kii daal dina leen di jot a tuumaal kenekat ñoom seen tur bu la commencé ku ci nekk nag commencé di yeggale ci sa xel mën nañoo jàpp ko ne kon jamono bii ñu toll nii dëkk baa ngi yëngatu lool rawatina nag ci li nga xam ne rek moom moo di wàllu politique bi ñu fas yéene see daal di dikkaat àndaat si ak yéen ci lépp loo xam ne rek ay jàngat la lépp loo xam ne ay analyse la fii ci biir réew mi di leen koy toppal d A à Z sur ma chaîne Partout TV kon nag wéyal di abonné saa su nekk ñuy fës di xëy di ànd ak yow ci li nga xam ne rek moom moo di ay information yu wér te wóor jaa ngeen jëf